yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi naafila 22 guddi ñaar fukkeel gi ak ñaar ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñaari rakan rakan bi ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng sabbihisma rabbikal a'la ñetti yoon jàng inna anzalnaahu ñetti yoon jàng xul huwalaahu ñetti yoon jàng falaxi ak naasi lu ci nekk ñetti yoon yàlla dana ko tabaxal ca àjjana juróom ñaar fukki dëkk yoo xam ne bu ci nekk junniy pale lay am pale bu ca nekk dina am junni néeg yoo xam ne wurus ak xaalis lay doon te néeg bu ca nekk junni lal dana ca nekk te lal bu ca nekk dina am junni soxna mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral page 149 ngay dellu ca xurratu ayni bu sa yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi